nañu changé rek L29 L30 loi d'amnistie elle est dangereuse ensuite président bu dee bëgg na nekk candidat bu déposé bu conseil constitutionnel nangoo euh, dañoo war a nangu décision bi parce que c'est le garant de la de, de l'application des lois constitutionnelles beneen bi nga ne président de la république bu nangoo euh, ne buñ ko falaatee mu réformer defaraat constitution bi alors loolu yi bu ko defee yow Doudou Ndoye maa ngi si wetam. da ngay ànd da koy damay fees. ah. fees naka ni naaj wi. fees naka. si wetam. jàppale ko jàppale ko. donc mën na sax bokk ci directoire de campagne parce que la ma bëgg la ma bëgg man. Hmm. loolu la ma bëggal Sénégal yokku ko si man dindiwu ko si man moom dafa bëggal Sénégal ñu fal ko man ma bëggal Sénégal faluñu ma si dootuñu ma fal mukk mais la ma bëggal Sénégal du jóg si man constitution bi nga xam ne. tubaab yi nekkoon dix-huitième siècle ñooñu ko colonisé sa ñoom seen bopp mu leen sonal ba tey jii ñun ñu nekk ci di si coloniser suñuy mbokk ñun suñu bopp waaye du fi jóg ñu nekk sénégalais suñu sëriñ si am la ñu tekki vraiment constitutionnellement doo ci boole parrainage bi mais parrainage